maire gouverneur ñoom ñëpp ñu ñëw euh, syndicats yi ñëw nañu société civile parents d'élèves yi euh, li ñu doon ñaan yàlla loolu moo am parce que li ñu gis fii ci Thiès ci école privée ba lay euh, di wax ne rek organisation bi yombul parce que loo xam ne mooy téeméeri junni ak juróom benn fukk junni candidat loolu yombul junni ak pratiquement téeméer yoo xam ne centre junni ak ñaari téeméer jury organiser ko yombul loolu nag war nañu remercier di féliciter di encourager acteurs yi acteurs yoo xam ne ñoom ñoo doon organiser examen bi treize épreuves 13 épreuves communes donc mu ngi maa ngi féliciter en tout cas le directeur des examens et concours pour le moment au niveau organisation fi ñu toll di wax ne rek examen bi pour le moment ñu ngi sant yàlla commencé nañ ko en tout cas si bismillah ñu ngi ñaan yalla ñu agalé ko ci alhamdoulillah rabbil alamin ko xam mom enseignant la ak parent d'élève ak élèves yi su doon seen sago résultat yu baax chaque année lolu mooy suñu objectif xam nga sooy évaluer élève day mel ni que yaa ngi évaluer sa bopp enseignant boo gis bëgg am résultat bu baax directeur boo gis loolu la bëgg donc ñu ngi sant yàlla parce que mun naa wax ni bi ñu demee ba tëj école yi le 14 mars ba jour bu ñu reprendre ñii di def classe d'examen musuñu taxaw mooy li ñuy wax ne continuité pédagogique gis ngeen rajo yi gis ngeen télé yi canal éducation amul woon ci la commencé am sa ressource di fonctionner enseignants yi defal ay classe virtuelle loolu moo tax bi ñu recommencé encore ñu am deux mois donc, deux mois, nous la classe fi mën nañ wax 20 élèves qui ñoo fa nekk donc enseignants yi donc def ci li ñu mën encore ñëw ñu am condition yu bari donc 20 élèves par classe man gëm participé à ce participer si résultat yu baax waaye su doon sama sago parce que xam nga am na 95 de réussite mais nous, ñu ngi 30 32 35 ren gëm naa ne en tout cas xamaguma résultat yi au niveau national ni ma ko xamee daal ni ma ko gisee mun na am suñu résultat yi ren mooy gën a baax ñi daaw